أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم إخوة الإيمان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ginnaaw ba nu tàmbalee ci turu yàlla tabaraka wa taala noo ngi ñaanal sunu yonentu muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam yal na ko yàlla dolli xéewal te musal ko ginnaaw loolu mbokk jullit yi ñoo ngi dugg saar bu bees muy suratu nisa saar bii di suratu nisa am na ay géndeeku yuñ ci war a def bala ñuy jël saar bi li njëkk mooy saar bi ñu ngi ko tuddee jigéen ñi am na ñaari saar ci Qur'an saari jigéen ñi lañ leen tuddee bi ci njëkk mooy saar bi nekk sunu kanam muy suratu nisaa ñaareelu saar bi mooy suuratu talaq mooy saar bi yàlla di wax mbirum fase saar bi nag madaniya la saa yoo jàngee Qur'an ñu ne la makkiya wala madaniya loolu dafa am lu muy tekki soo gisee ci bopp saar bi ñu def suuratu nangam madaniya wala ñu def suuratu sàngam makkiya mooy saar bi ni mu tudd ak fa mu wàcc saar bi nag kon mi ngi wàcc medinatul munawwar lu dul am na ci aaya yoo xam ne wala aaya boo xam ne boroom xam-xam yi dañuy wax ne wàccul madina aaya yi sittun wa sab'una wa mi'a ñaata aaya la cent cent soixante-seize aaya suratu nisa saar bi ñu ne madina la wàcc alquran cent quatorze saar la vingt-deux ñoo wàcc médine kon ñaataa ci des quatre-vingt-douze yëpp Màkka la wàcc vingt-deux yi ñoo wàcc médinatul munawwar kon saar bi bokk na ci 22 yi wàcc Médine bi bokk na ci ihda sura al madaniya at tawila benn la ci saar yi wàcc Médinatu Munawwar te gudd lool lan mooy wane ne saar bi dafa gudd mooy ñaata aaya la 176 aaya moo la nga xam ne kon saar bu gudd la wa hiya suura malia bi ahkam alsharciya saar la boo xam ne dafa fees del del del del ak ay atte sharia looloo tax jullit ñi war a yittewoo alquran yépp waaye rawatina saar bi lu tax mooy saar bi dafa fees ay atte yoo xamante ne sunu dund la la jublu naka la ñuy dundee allati tunazimu suuna daaxiliya yan mbir mbir yoo xam ne dafa jublu ci sunu biiri kër sunu biiri néeg sunu biiri gox sunu biiri dëkk sunu biiri réew yàlla daf koy lijjanti ci saar bi lépp loo xam ne dafay indi organisation day jubal day baaxal mbirum biir yàlla leeral na ko ci saar bi waaye est-ce que mbirum biir kese la wal xaarijiya lil muslimin biir ak biti ñeel jullit sa biir ak sa biti yépp la koy baaxal lay tax mu organiser lay tax mu baax borom bi tabaraka wa taala faram fànceel na ko ci suuratu nisaa léeg-léeg ma faral di wax ne li tax sunu dund léegi dootul baaxati mooy bàyyi ñu bàyyi alquran rek loolu kese la parce que bu fekkee ñun ay jullit lañ buur bu toll na yàlla wàcce ci ñun téere téere bi nga lim ñu ne la nangami saar la saar bu nekk sax ñu wax la fu mu wàcc saar bu nekk ñu wax la nangami aaya la yàlla wax ci saar boobu nu nuy dunde ci biir ak biti ñun toppatoowul loolu ndax suñu dund dina baax ñun du baax mbokk yi mu ngi mel ne train bu bugg a daw ci suuf train bu normal bu bees tax léegi lañ ko dajji ci paquet mais ñu teg ko ci suuf lu ngeen ci xalaat ah du dem oto bu bees tax 4x4 ñu indi ko ba ci tefes géej gi ne bismillah chauffeur bi anama day est-ce que day dem du dem dañuy rey chauffeur bi rek mais du dem inna safinata la tajri alal yabas boroom xam-xam yi nee na gaal du daw ci lu wow gaal du daw fu wow ñun ay jullit lañ yàlla li mu wax mooy baaxal suñu dund mooy alxuraan bi gis nga lan lañ wax léegi mali bi ahkam ash-sharia saar bi dafa fees del ay atte sharia lan lañ ci tegaat ñu ne allati tunazimu as-su'un ad-daxiliya wal xaarijiya lil muslimin li nga xam ne dafa ñëw pour organiser mbiru jullit yi ci biir ak ci biti waaw bu fekkee saar bi dafa fees del ak ay atte ñëw war a organiser sunu dund ci biir ak ci biti ñun saar bi xamul luñ ci xamuñ ci tus ndax dinañ dem duñ dem waaye wahiya te mooy saar bi تغنى بجانب الشريعة كما هو الحال في السورة المدنية saar bi li mu gën a yittewoo mooy atte islam atte sharia xam ngeen ne saaru madina yi ci ëpp yëpp ay atte la indi lu tax mooy alxuraan bi muy wàcc màkk foofu yàlla da doon defar pas-pas yi gaa yi ngëm-ngëm gi la doon defar moo tax ay wàcc màkk yëpp ci imaan lay woote ak alaaxira ak tawxiid daanaka saar yi wàcc màkk yëpp dañoo tàng jër amul bu sedd waaye yi wàcc Medine day néew nga dégg yàlla di ci takk di ci di ci tëkku jaam yi ndax lan ay atte la indi loi yi parce que bu ñu jógee Màkka ñëw Medine dañoo am état islamique comme am nañ état nag état bi foog am lu ko tënk jaam ñi foog am lu ñu dund léegi nag ay di wàcc di wax nan la ñuy dundee loolu moo tax mboolem saar yi wàcc Médine ay atte la ñu indi moo tax da ngay fekk nu ñuy jullee nu ñuy wooree nu ñuy nu ñuy nu ñuy nu ñuy genn wàllu saar yooyu yëpp Médine la waaye saar bu wàcc Makka di wax ci ay sharia bariwut mbokk yi saar bii di suratul suratul nisa tatahaddas assura alkarima an umurin hamma tataallaqu bil mar'a gis ngeen saar bii nekk sunu kanam muy suratul nisa saar bi dafa ñëw di ñu waxtaanal di ñu wax di ñu leeralal mbir yu am importance trop ci mbiru jigéen ñi gis nga jigéen bañ nañ ko ba saar bi kan lañ ko tuddee jigéen ñi tey looy dégg ci àddina bi journée mondiale de la femme xoola journée àddina bi yëpp journée lañ yéene jigéen journée ah journée benn bés la ñu yéene jigéen yàlla jël alquran tudde ko jigéen ba pare saar bi ñëw li saar bi di wax la ca ëpp yëpp mbiru jigéen la di ko leeral waaw kon kay allahu akbar aka nekkoon jullit ñi xam li ñu am wallahi bu jullit ñi gëmoon lislaam su jullit ñi gëmoon alquran kon kenn waxatu ko bu ñu wax adduna bi dina am yee fér de mais day néew mais maal asaf jullit yi ci seen bopp ñoo njëkk a réere diine ci waxuma la ak ñeneen nag ñun ñi nga xam ne ñoo ko waroon joxe ji suñu ko réeree xamuñu ko est-ce que ñeneen dinañ ci sawar saar bi dafa ñëw di nu nettali di nu leeralal lu bëree bëri ci mbiru mbiru jigéen benn ngi noonu wal bayt di ñu leeralal biir kër góor ak soxnaam nu ñuy nekkee ci biir kër gi borom kër gi ak ay doomam nu ñuy nekkee yaay ji ak doom yi nu ñuy nekkee yaag sa baay nu ngeen di nekkee yaag sa wayjur bu jigéen nu ngeen di nekkee yaag biir kër biir kër ñan ko dëkkal ñëpp saar bi ñëw di leeral loolu Hmm. gis ngeen kon bu fekkente ne sunu kër yi sunu digganteeg sunu soxna yi dafa am problème ça veut dire que comprendre nu saar bi sun sunu biir kër yi bu- buy tàkk kër yi buy tàkk ça veut dire que comprendre nu saar bi parce que saar bi dafa ñëw di ñu leeralal mbiru jigéen bi mu leeralee mbiru jigéen ba mu leer lan la leeralaat mbiru kër biir kër bi mu bàyyeekoo ci biir kër lan la jugul xool te xoolal ni mu ko tegloo famille famille la ci teg jigéen kër famille bi mu leeral ne mbiru famille lu mu ci teg ak duwal état bi état bi nag lañ war a dundee hmm? xoolal bi mu leeral ne mbiru état bi lu mu ci teg société bi al mujtama waaw léegi nag mbokk yi société boobu bu réeree Qur'an état boobu réere alquran famille boobu réere alquran kër gi réere alquran ndaw si réere alquran luy raw nga gis société ceddo ceddo mooy comme suñu société société ceddo mooy société boo xam ne amuñu lislaam mooy société bu ceddo moom la ñuy wax mujtama jahili société boo xam ne ñëpp ay ceddo lañ doo gis kuy dund lislaam wala ndeysaan ci tur rek xoolal comme tey nu mu amee suñu réew kon saar bi dafa ñëw di ñu leeralal mbiru jigéen naka lañ war a toppatoowee jigéen naka lañ ko war a yaree naka lañ ko war a gérer naka lañ ko war a encadrer su jigéen jooju baaxee saar bi ne ñëw leen ci kër gi nanu defar kër gi mooy baytul muslim su kër gi baaxee mu ne nañ defar famille bi su famille bi baaxee mu ne nañ defar dëkk bi su dëkk bi baaxee mu ne nañ defar société bi yàpp mbokk yi bu lii lépp baaxee dëkk bu nekk bu fa lii baaxee àddina bi nu muy mel hmm? àddina boobu day jub mais dëkk boo xam ne xamuñ dara ci lislaam lépp a yàqu jigéen ñi dañoo yées kër yi yàqu famille yi kenn waxatu ko état ba moom lu ngeen lu leen neex ngeen wax ay góor jigéen ak ay franc-maçon ay mbër ak ay musiciens ñooy ministres yi ak présidents yi société boobu lu ngeen ci xam kon société ceddo lay nekk comme nu ñu amee sunu réew walakin mu'zamu ahkam allati waradat fiha kaanat tabxas xawla mawdu'in nisa gis nga saar bi li muy gudd gudd li muy rëy rëy rëy rëy rëy lii ma waxoon sànq yépp ci ay li mu war a defar li gën a rëy ci ay atte yi saar bi indi ci mbiru jigéen la ko jëmale walihaza sumiyat suratu nisa looloo moo tax du hasard ñu tuddee saar bi saaru jigéen ñi parce que li ëpp ci atte yi ci jigéen ñi la ko jëmal tey ñun loolu lañ gën a loolu lañ gën a alku tey topp tubaab yu bon yi nga xam ne gëmunu yàlla gëmunu yonent ñu ñuy fippuloo suñu jigéen ñi da ngay dégg sa association yoo xam ne ay jigéen yeewu yeew yi léegi nit ñi comprendre nañ loolu xam nañ ne nit ñi fàtt nañ bunt yooyu xam nga léegi lu ñu indi xam ngeen ban système la la tubaab yeeg yawut yeeg nasaraan yi indi pour yàq dëkk bi xam ngeen ko ah non parité pa- parité xam nañ ne comprendre nañ ko léegi lu bees lañ indi mooy bàjjanu gox bàjjanu gox comprendre leen xanaa sëriñ bàjjanu ñu nekk ay ndeysaan ñii ñooy defar gox bi billaahi kuñ dugg sa kër sa kër tas parce que dañ leen jël formé leen naka la ñuy génne la jigéen ñi ci biir kër yi naka la ñuy fippaloo jigéen ñi naka la ñuy jéemee ne dañuy jéem a ne dañuy ne dañuy jéem a conscientiser jigéen ñi ci lan planingal gis nga planingal gis nga góor ñi ah gis nga bu fi nekk di jur laa la wax ma ne defal sa bopp bi ndox gis nga góor ñii gis nga yooyu lañ lay wax ko defee ngay wàcc rek ngay wàcc rek ndaw si jox ma añ mu ne la dama sonn ah bàjjanu gox moo fi jaar bàjjanu gox yi ñoo nekk ci koñ yi yàq xale jigéen ñi yàq jigéen ñi sëy ci biir kër yi kon gis nga chaque jour suñu nàndee benn mbir ñoom dañuy ñëw indi leneen lan lañ doon wax ay yeewu yeewi association la woon fippu ak su faam nit ñi comprendre ne ah yi baaxul léegi nuñ def gox bu nekk ñu dem tànn fa jigéen ña fa gën a bon ñi nga xam ne amuñu kilifa déggaluñu seeni jëkkër ñu formé leen tudde leen ay bàjjanu gox gox bu nekk am na fa ay bàjjan bàjjan yooyu lan la ñuy contrôlé lan la ñuy def ci biir kër yi mooy fippuloo jigéen ñi ak di espionné ndax koñ bi am na daara ndax daara jooju xale yi dañ leen di yalwaanloo sëriñ ba lu muy def nangam ak nangam su demee di boole ci loolu mooy liggéey bàjjanu gox yi ah mooy ay espion lañu ngeen xam ko ku ci am jigéen joo xam ne bàjjanu gox la bu yeboo nga génne ko ci ndax seytaane la ci kanamu yàlla kon saar bi dafa ñëw mbokk yi di leeral li gën a rëy ci sunu dund mooy jigéen ndax jigéen su baaxee rek àddina bi baax bépp société boo xam ne jigéen ña dañoo baax société boobu baax na bépp ji société boo xam ne jigéen ña dañoo bon société boobu yàqu na tuuti na dootul baaxati ba yowmal xiyaam bu leen fàtte ne yonent bi alayhi salaatu wasalaam doon na wax ne jigéen bu baaxee rek société ba baax bu société bonee bu jigéen bonee société bon xool leen benn góor bu am sida munu ko tasaare ah waaye benn jigéen bu am sida su ko neexee koñ bi ñépp am sida ndax day oyofal sërëm rek di ko def kër par kër kër gu nekk mu jote fa kenn yomb bay bëgg dee waaye góor loolu tax gis ngeen ci mbirum njaaloo ak sàcc wallahi loolu moo tax ñu war a xam ne alxuraan waxu yàlla la ci mbirum njaaloo yàlla jigéen la jiital parce que su jigéen intéressé wul du am sàcc pouvoir la góor la jiital parce que góor moo pouvoir mbirum njaaloo nag mbirum bànneex la jigéen la moo tax yàlla ne azaniyatu wazani mbiru sàcc mu ne asariqu wasariqa wala ne alxuraan waxu yàlla la waa ji waa ji di dof dof lu fi naan culture grecque la dafa jàngul rek dafa jàngul àll yooyu ma xóotul waaye bu àll yooyu ma xóotoon mu tiim ci téere bi teg ci ay bëtam semaine yoo xam ne génnul néegam lu dul diggante jàkka jeeg téere bi wallaay bu paree dina si jóot jéggulu yàlla xam ne li waxu yàlla la ndeysaan ma tara fi xalqi rahman farji albasar hal tara min futur summa arji albasar karratayni yanqalibu ilayka albasaru xaasi'an waasi allahu akbar suñu borom ne dellool say bët nañu xippi xool toxoñul xoola bu baax say bët dina dellu siwaat ci yow torox waaye li yàlla bind wax ko doo ci gis manqué manqué ixwaan yi saar bi di suratu nisa dafa ñëw di waxtaan ci tomb yi gën a rëy ci mbiru jigéen ñi waaye saar bi ñëw tatahaddas assura alkarima min huquqi nisa wal aytam wa bi xaasa alyatimat fi xujuri l awliya saar bi ñëw na di waxtaan ci mbiru àqu jigéen lan mooy droit wu jigéen gis nga tey lan la ñu naxe jigéen ñi ci àddina bi mooy droit de la femme femme yi amuñu droit kenn joxu leen droit dañ leen di fowe ah dañ leen di torturer dañ leen di toroxal kan moo ko def dëkk bi gën a dëkk bi dëkk yi ñu gën a tooñ l'islam mooy dëkk jullit yi nga xam ne àtte woñ fa l'islam dañ fay tooñ l'islam dëkk bu mel ne Sénégal dañ fay tooñ l'islam tooñ bu métti xam nga lu tax dañuy gis benn benn abdallah buy séyeeg benn fatima amaana abdallah moomu tooñ na fatima dóor ko dóor yu métti wala gaañ ko wala ci biir sëy bi mu toroxal ko ñii seetaan lan la ñuy wax waaye xoolal kii xoolal lislaam lim def xoolal lislaam lim def waa ji jàpp jabaram dóor waaw lislaam moo tax waa ji dóor ndaw si ah est-ce que waa ji bu muy takk ndaw si waxoon na waaw lislaam kan lay takk est-ce que takk woon nañ ko ci salon ni lislaam bëggee est-ce que labatoon na ko noonu est-ce que bi ñuy dund dundoon nañ lislaam léegi lan moo tax ndaw suñu tooñ Sénégal rek ñu ne lislaam la ñu tooñ lislaam Sénégal dunduñu diine fii kay kuñ tooñ lu ñu war a wax ah Moodu moo tooñ kumba rek waaye bu ñu wax lislaam parce que du lislaam parce que waa ji lim def wala ndaw si lim def ba ñu def ko est-ce que loolu lislaam la looloo tax nag ndeysaan pays islamique yëpp yu mel ni ay Sénégal nga xam ne 95 pour cent musulman tubaab bi dañuy profité su fi benn jullit defee dara rek daf ko jabaram wala mu def ko doomam bu jigéen wala ci biir société bi am ku jóg def jigéen dara rek nga gis ñu indi seeni rajo seeni télé xool leen toroxal nañ jigéen ñii duñ jox jigéen ak xam islam rek moo jox jigéen ak amul beneen diine nag amul beneen droit bu fi nekk amul beneen système bu jox jigéen fan la lislaam fekk jigéen loolu la ñu war a njëkk a xool balaa nga ne man joxuñu ma sama àq wala islaam joxul jigéen àq da ngay fe da ngay laajte waaw yow jigéen fan la la lislaam fekk bi njëkk mooy islaam dafa fekk bu ñu juree jigéen waa ji day am doom léegi ne ne jabaram ban doom nga am mu ne jigéen mu ne indi mu jox ko mu dugal ci mbuus dem ba ci àll bi gas ba mu xóot suul am na jigéen baaxul góor laa bëgg loolu lislaam fekk yàlla wax ko ci quran wa izal mawudatu suilat bi ay zambin kutilat yàlla fekk ñuy suul jigéen mu ne déedéet bu ko kenn suulati yàlla fekk jigéen ñu koy donn xam nga yenn saa yi de gars yi dañ naan non l'islam dafa juum yàlla li mu wax fee ndax góor ci miraas góor day am ñaar jigéen am benn waaw balaa nga ne boobu jaaduwul dafa fekk l'islam l'islam dafa fekk ñuy donn jigéen mu ne déedéet bu kenn donn bal moom day donn kon kay dëgg-dëgg ku fekk ñu lay donn sa jëkkër day dee rek benn kenn ci famille bi ñëw daal di lay sànni benn kaala nga capté kaala gi mu ne ni ma moomee kaala gi laa la moomee suba mu ñëw fanaan si lislaam ne mukk ci àdduna kii doo ko donn bal moom day donn déedé soo ko aajowaatee da ngay takk da ngay joxe can waatu nisa sadaqatihinna jox leen jigéen ñi seen can ku bëgg a takk jigéen da ngay joxe can maanaam atte yooyu yëpp dina ñëw mais dañ bëgg a leeral tuuti rek fi islam fekk jigéen ñu koy rey di ko suul di ko donn bal ñu ne jigéen sobe la yàggul dara ci France jàngeen ko ci ay année yu yàggul dara ñu dajale di wax est-ce que jigéen nit la yàggul dara mu ci livre yi ñu ne est-ce que jigéen nit la ñii ñu ne non du nit ku nekk wax sa xalaat ñenn ñi lan lañ wax bal jigéen dañoo war a bënn ñaari tuñ yi def ci kànnaar tëj ko ndax warul wax ñenn ñi ne jigéen seytaane la ñenn ñi seeni jigéen bu amee bu amee règle du ñu dend ak moom du ñu lekkandoo ak moom du ñu séy ak moom seen kër bu ñu ko tabaxee ba pare ci ginnaaw kër gi dañ fay def benn néeg su jigéen bi indisposé foofu lañ koy tëj bu setee ñu indiwaat ko ci biir xool loolu al alxuraan da cee wàcc wa yasalunaka anil mahid qul huwa azan faatazilu nisa fi lmahid wala taqrabuhunna hatta yatataharna fa iza tataharna faatuhunna min haysu yonente bi saa sallam bu muy firi aaya mu ne isnau kullu shay illa aljima def leen lépp ba mu des sëy da ngay nekk sa soxna ci biir kër gi mooy indisposé kenn du ko yëg kenn du ko xam ku dul yow yéen a ngi lekk yéen a ngi naan yéen a ngi kaf yéen a ngi bokk lal bi lu nekk yaa ngi koy laal ci yaramam ba mu des jumbaxam ba ci óomam diggante boobu waroo ko laal gars yi ñoom démb lan lañ doon def dañ koy sànni ci ginnaaw kër gi ne sobe la ba mu set soo demee ci yahuud yi am na nuñ jàpp jigéen nga ñëw ci nasaraan yi am na nuñ jàpp jigéen nga dem ci culture yépp am na nuñ jàpp jigéen ci lislaam rek ngay ñëw fekk mu teral jigéen lu tax bopp saar bi aaya bi yàlla ne yaa ayuha nnaas ittaqu rabbakum allazi xalaqakum min nafsin wahida ragal leen yàlla mi nga xam ne moo leen bind jële leen ci benn bakkan mu ne ci bakkan boobu la génne soxnaam islaam lan la wax fan la ñu jële jigéen ci faari aadama ban faar faaru càmmoñ bi faar fan la nekk ci sa wet ñu ne lu tax jigéen génnewuñ ko ci bopp borom xam-xam yi ne dalay tiim supérieur la toog sa kaw ñu ne lu tax génnewuñ ko ci suufu tànk kon da nga koy def jaam di ko dëggati waaye ci sa wet kon dafa war a nekk sa wet allahu akbar war a nekk sa wet nekk conseil nekk yaay nekk maam nekk bàjjan nekk doom nekk sœur loolu tax boo amee jabar ju baax lii ma li yépp daf koy mat yenn instant yi du nekk sa jabar mais sa sœur lay nekk yenn saa yi du nekk sa sœur du nekk sa jabar mais sa yaay lay nekk day mat palaasu yaay waaw da ngay xam ne kii ni mu may toppatoo nii kii li mu may def nii nii la ma sama yaay doon def bi may naam allahu akbar su jigéen baaxee laa wax de day mat lépp looy xam ne am nga ko ci jigéen daf koy mat kon saar bi dafa ñëw di leeral ay àq yoo xam ne jigéen def koo am waaye jirim def koo am jirim kan mooy jirim ku papaam génn àdduna nekk góor wala nekk jigéen saar bi dafa ñëw di ko leeral xoolal loolu tey soo demee ci tribunaux yi ñaari dossier ñoo fa ëpp mooy sëy ak miraas te ñaar yi l'islam def ko leeral ba mu ne boy mais pourquoi pourquoi ci société islam yi mu am problème parce que du ñu dellu ci l'islam dañuy dellu ci Jean ak Paul ak nangam nangam foofu la ñuy dellu te loolu jubul mënoo nekk jullit di àtte wala leen du dem kon saar bi dafa ñëw di leeral mbiru jigéen ay àqam ak jirim wa bi xaasa alyatimaat rawatina nag jigéen ñi nga xam ne seeni waajur dañoo génn àdduna ndeysaan xam nga jigéen dafa gaaw tumuraanke soo gisee yonente bi di tere jigéen tukki sans sans am ku mu àndal mooy jigéen dafa gaaw tumuraanke da ngay am léegi benn jigéen boo fekk fii léegi ci arekaar muy jooy nga ni ko lan la mu ne dafa guddee dafi wóorul commencé di xëpp xippali ba wala fii sax rek da ngay gis ku jigéen bu dama bëgg a traversé fii grand ma ñëw topp la ma ñëw ànd ak yow gis nga loolu moo tax lislaam ne jigéen dafa nekk ci ay loxo loolu rek moo koy jural jàmm ay loxo jigéen warul libre tubaab bi nag dañoo xam ne suñu deful loolu lislaam day favoriser adduna bi moo tax ñu jéem a génn jigéen ñi joxal leen ay liberté ñu nekk ci mbedd yi di tambaambalu jigéen ñi ba ñu commencé tambaambalu ci mbedd yi ba léegi lu ngeen gis ngeen gis est-ce que mos ngeen dégg màkk jigéen ju ñu agressé ah dëkk dëkk yi jege lislaam yëpp doo fa dégg jigéen ju ñu agressé waaye sunu dëkk yi nga xam ne jigéen ñi dañoo ay saay-saay lañ ci mbedd yi la ñuy fanaan ba bët set bés bu nekk saa yoo xëyee nga dégg dara soo ko déglu déglu rajo saa yoo xëyee dégg dara ñaareel bi ba tey ci saar bi saar bi dafa ñëw di leeral fii xujuril awliya aliyat al aliyatimaat jigéen ñi nga xam ne seeni wayjur dañoo faatu ba pare nekk ci biir kër yi saar bi ñëw di leeral jigéen ñooñu naka lañ leen war a traité naka lañ war a toppatoo yan ak lañu am mbokk yi saar bi ba tey ñëw di leeral loolu nga xam ne borom kër yi ñu ngi koy dénkaane bu ñuy waaj a génn àdduna ci seen njaboot léeg-léeg nga gis kuy génn àdduna daane indi leen big ñu indi mu ne bind leen ñu bind nangam ak nangam ak nangam nangam ba mu jeex léeg-léeg sax waa ji mu ne bu ma deewee bu ma kenn toxal nañ ma suul fii nga gis gaa yi ñëw ne wéy yow ban suul fii daal di la yéenu jagat la jagatee sànni ci oto yóbbu fa leen neex suul la daal bi dafa ñëw di leeral loolu wasiya boobu bàyyi yi di def jëmale ko ci seeni kër ci seeni doom ci seeni njaboot wala ñoom nan lañu bëgg a dundee waaye ba tey mbokk yi saar bi dafa ñëw fa qararat xuquqahunna fi lmiras wal kasb saar bi ñëw di leeral ak jigéen ci miras ak fàggutéef ndax jigéen war na am am am wala warul am am am démb ñun dañ ne woon jigéen warul am ndax lépp lu mu moom jëkkëram génn na àdduna moom dañuy ñëw moom ko moom la mu moom loolu gaa yi naan ginaar ak neen yépp boroom ginaara moom noonu lañ daan def jigéen yàlla mu ne déedéet jigéen dafa am ndono dafa am àq ci miraas waaye ak lu mu fàgg lu mu liggéey moo ko moom ñun yaakaar na jigéen warul liggéey yàlla ne na jigéen lu mu fàggu moom moo ko moom ah waaye digganteem ak jëkkëram saar bi dafa ñëw di ko leeral ndaw si ak borom këram naka lan war a dundee naka lan war a nekkee naka lan lan mooy sëy bi gis nga moo tax bopp saar bi moom la ñuy takkee moom lañuy takkee sëy yi bopp saar bi mbokk yi ci yàlla saar bi ñëw ba tey di génne jigéen ñi ci pas pasu ceddo yi melokaanu jaahiliya jigéen bu dul jullit ni muy mel yàlla ñëw ci saar bi di dégager loolu ci jigéenu jullit di ko won ne warul nuróog jigéen juddul jullit saar bi ñëw di leeral loolu wa taqaalidiha alzaalima almuhaymana saar bi ñëw di leeral yoon yooyu nga xam ne yahuud yeeg nasaraan yi tëral nañ ko bëgg cee jaaral jigéeni jullit ñi te mooy yoonu tooñ yoonu tooñ woowu nga xam ne tey tooñ nañ ko jigéen walal ci col rek ci col lislaam lan la wax jigéen mu sol mu ne na yaramam yëpp muuru bu kenn gis dara nasaraan it ak yahudi bi ñu ñëwee luñ def dañ koo futti ba mu set ah solal loo ko lu gàtt yaramam yëpp ñu teg ko ci biti exposé ko dañoo dem sax ba suñu société boo bëggee ngay jaay dara mu jar looya da ngay foto benn jigéen taf ko ci gis nga même panneau publicité yi da ngay gis téléphone crédit crédit ñu taf ci jigéen bi def yaramu neen crédit kese kaay leen jënd crédit wala crédit am na 100 pour cent lu ci jigéen uti wala bëri jëndi daa neex na lu ci jigéen bu def yaramu neen uti ah tàngal mante saf na pasti lu ci indi jigéen bu def yaramu neen waaye déedéet foog ñu futti benn jigéen def ko sirigu neen jox ko tàngal bi mu ne nii nga defe ne gars yi buñ ñëwee di xool tàngal bi la ñuy xool xooluñ tàngal bi de ndaw si la ñuy xool ah. waaw loolu moo tax nag ndaw see tax. ndaw si wala ndaw si ndaw si ñu futti bu nanguwul woon ñu futti ko kon kenn du dem foofu gisoo même même même même soirée yi ngay gis nii soirée yi ngeen di gis ñi ñuy kii nii góor ñi lu tax ñu daw di fa dem même fii ci koñ ñi sax gars yi tëgg ko la dara lu ñuy wax homme. homme femme lu tax femme libre. lu tax waxuñu femme 1000 francs homme 1000 francs pourquoi góor bi rek fay c'est ça mooy ndeysaan dañoo bëgg jigéen ñi nan ñëw su ko defee góor ñi daal di ñëw loolu lañ jàpp jigéen ñi génne leen ci biir kër yi futti leen yaramu neen moo tax tey jigéen amatul valeur jigéen amatul valeur bu njëkk ba xale bi bu jigéen bi bu juddoo lañ koy lañ koy da ngay gis parce que dañoo ma dañoo dañoo dañoo seeroon bu xale bu jigéen bi juddoo rek da ngay gis ku ci takk sagar ah kii de maa ci takk sagar ñu ne ah nga ne waaw maa koy takk buy fer rek di kerek ñu jël yóbbu mais tey moo koy takk sagar fenn da ngay ay meere ngi fi amuñu jëkkër ah d'accord ngeen bu njëkk ba jigéen buy am 14 ans rek ana wax sëy na mais tey da ngay gis koo xam ne ndeysaan futteeku na xeesal na sol na dàll cap monte na ange monte ween monte ange monte xef monte wee monte kawar changé ro te daru bat ba léegi jarul eh waaye ñaanal leen ma nag imaam ñaanal ma nag doo jar da nga dee fii doo jar de gis nga bu ñu bu ñu leen muuroon nëbb leen kon ñëpp kon jigéen ñëpp sëy nañ mais jigéen ñi dañoo lamba dinaay joxe misaal yenn saa yi tabas bu jotee bu nu reyee xar yi ba ñu fees am na ñoo xam ne bu nu feesee ba pare ba lakk soo leen ne kaay lekk yàpp ñu ne sii parce que pare naa ci wala am na ñoo xam ne bu leen xet gi di xeeñ sax bu yàggee dañuy feebar gis nga noonu la yàpp bi lambee jouru tabaski noonu la jigéen ñi lambee tey day gis xale góor yi kaay lu ma koy doy kaay takk jabar mais meer lu may doyee jabar ndey ak may fóotal ay daa ngi bale kumba moom moom laay doxantool lu may doxee jabar benn xale bu góor fukki jigéen topp fukk fukki xale jigéen wala wala gis na loolu kooku nu muy dee jabar ah parce que dañoo yomb boo génnee fii léegi nag ku taxaw fii léegi léegi sa digganteeg essence bi ne dama caa mi ñaama ko lu ma jënd sandis wala may ma juróom ma jënd fondé xam ngeen li may wax ci biir koñ yi ngeen dëkk banlieue ngeen nekk li ma wax yëpp yéen a ngi ciy teg bët waxuma sax ay xale mais ay maire magum jëm allah ji yoroo foofu fukki dërëm waaye yoruma dara laa wax kusal ne waaw mu ngoog waaw xam nga fukki dërëm ku koy dox di mbedd ñaan mbedd yi guddi fukki dërëm fukki dërëm dana tax mag nit jóg guddi ki lay ñaan fukki dërëm boo ko génnee les 2000 fu mu jóg nañ ragal yàlla te wax dëgg bi xam ne lii moo yàq suñu société parce que l'islam dafa fonk jigéen lii moo tax tubaab yi xam ne suñu bàyyee dëkk l'islam yi kon adduna bi day jot adduna bi day normal parce que jigéen ñi dañ leen war a denc waruñu lambar lambari ci mbedd mi comme niñ mel nii nga xam ne jigéen day xëy fajar ba ngoon du nekk ci biir kër ci mbedd yi rek ci oto yi ci hôtel yi ci tambar lambari bu guddee mu ñëw tëdd wala mu yendoo nelaw ba ci timis mu sangu waaw dafaru ba anawaa fajar mu ñëw tëdd loo lu nekk nag am na ko am na oto am na portable yoo xam ne am na ab mooy fay appartement lu muy liggéey su ko defee góor ñi saay saay yi nga xam ne bugguñu jabar bugguñu jub ci ñooñu rek la ñuy topp langal leen ko anawaa ba seen àdduna yëpp jeex nag ñu ne nag léegi dañuy dellu ci yàlla nag waaw xaaral ma tuub baax na yombal nañ tuub de Sénégal dañoo yombal tuub da ngay nekk ci loola neex ba màgget nga xam ne léegi allahu akbar sa mënutoo ko akubar jaakubar nga ne xaaral ma tuub wax na yàlla dina toog fi di la xaar nga naan da ngay tuub mbokk yi saar bi dafa ñëw di leeral wa taarradat li mawdu'i al mar'a fa saanat kiramataha allahu akbar saar bee ñëw mbokk yi imposé jigéen daal di ñoŋal personnalité am daal di teg jigéen ci kaw allahu akbar fekk ko ñu koy toroxal di suul di def lu kenn xamul yàlla ñëw jàpp ci loxo góor ñi sànni fële sépp jigéen ci tilim tilim yooyu aj ko ci kaw sang ko ba mu set solo ko yërey jot ne ko sax même biir kër gi sax bul liggéey toogal moo tax jigéen ñi comprendre soo demee ci réewu lislaam yi da ngay gis góor ñi ñooy dem marché góor ñooy def lépp ndaw si moom dañu kaay lekk kaay sangu moom solu rek ak defaru toppatoo jëkkër ji waaye xoolal fii jigéen ñi ñoo nekk ci marché yi di lambar lambar yi jigéen ñi sax dañuy nekk ci tali yi di bale bale di bale tali yéen yaakaar ngeen ne Sénégal ñàkk na ku bale tali wax leen dëgg Sénégal ñàkk ngeen ay góor yu bari taali ba ñuy jël jigéen ah mu nga xoolal liggéey yooyu nu mu mettee ah ay bale tali kay dëgg-dëgg ñan ñoo ko yeyoo oto mbalit yi ñan ñoo ko yeyoo mais liggéey yooyu liggéey góor la du liggéey jigéen mais pourquoi ñu jël jigéen ñi di leen fa dugal loolu ñuy wax xaw ma loxoy kajoor dee sa la ba ci sunu ba ci tey sax bi ma dégloo rajo lan laa dégg ñu ne enseignant yooyu nga di enseignant yooyu nga xam dañu leen recruté woon ñu war a jàngale ji dañoo dañoo dañoo fraude dañoo éliminer examen bi ndax fraude yi dul jeex te boo doon xool loolu recrutement yi ci ëpp jigéen ñi la mais joxe seen bopp pour ñu jël leen ñu dem jàngale ji wala loolu lan lañ jëm loolu lan moo tax mu mun a nekk mooy jigéen ñi lañ génne mbedd yi jigéen ñi la ñu bàyyi ñu libre dem di lijjantil seen bopp seen i problème da ngay gis paa boo xam ne lijjanti dafa sonn mënul xale bi ne ko indi jox ma kayit yi ñoo ne la signé nañ ko mu ngi nii ah fan la jaar bañ signé ko lan la wax bañ signé ko lan la def 15 jours paa bi mënul fexe ñu signé kayit yi moom benn ngoon ñu signé ko am na ci borom kër yoo xam ne sax bu ñu bëggee léegi seen affaire gaaw seen doom bu jigéen la ci kaay dem dimbali ma ci dégg nga bu demee ñu defaral ma ko day ñëw ne papa defar nañ ko lan la def ba ñu defar ko da ngay gis paa boo xam ne sax day ñaan doomam portable nañ changé yoo xam nga yi yomb na la jox ma bii mu ne waa jëlal man ñetti fan ma réglé waat beneen ñetti fan nga gis ko mu yorewaat allahu akbar xoolal Zakaria keroog ba mu duggee ci Mariam mu fekk Mariam fruits yi ñor raison saison bi mu fekk Mariam yor yeneen saison yi mu jaaxle mu ne ko waaw yaa Mariamu anna laki haza waaye foo jëlee lii loolu borom kër yëpp ko war a wax seen doom diw nga ne amu ne foo jëlee lii mais tey loolu loolu diyaana kenn dootul wax sa pa sa doom bu jigéen foo jëlee lii lu tax ndax bu dee 10 000 la ba mu ñëwee jox na la 2000 jox yaay ji 2000 est ce que di nga ko ne foo jëlee 10 000 bi ah jeex na waaw yenn saa yi da nga ñëw ne ko ah ceeb bi de mi ngi waaj a jeex wala fayeguñu courant mu ne la xaaral ba mu wàcc ngoon fay ko loolu musiba la islam dafa ñëw saar bi dafa ñëw pour yëkkati kiraama allahu akbar jigéen pour wax ñu jigéen mooy kan wa hafizat kiyaanataha mu wattu jigéen encercler ko mu tere ku ko xool mu tere sax ku bànneexu ci waxam mu tere ku ko nuyu mu tere ku ko laal xoolal xatta nga xool jigéen dan la ko tere dañ leen a teel say bët bul ko xool nga bëgg a bànneexu ci waxam yi ñu ne la déedéet moom buy wax sax na wax wax ju normal pour yow doo kontaan wala loolu alxuraan ah oh waaw même jigéen di dund ñu ne la bul ko laal lu dul nga takk ko mu dee ñu ne la bul laal kees gi da ngay gis bi jigéen bu dee ñu ñu sàng ko ci morgue bi génn rek gaa yi farax faraxi daw jàpp tey kees gi di jéem a baax baaxlu ma li may wax ñàkk jàng sharia kees gi sax kees gi ku dul maxaramam waroo ko laal waxuma laag nag nga naan da ngay dañuy dem ba ci armeel yi génn ko ci kees gi nga naan da nga koy laal mais ñàkk a jàng diine kees gi laa wax de waxuma nga laal yaramum fekk néew la dafa faat néew la amoo droit laal kon bu muy dund nag kon lislaam moo aar jigéen moom mu tere ñu xool ko tere ñu laal ko lu dul mu ne la su la intéressé acca demal ci ay kilifaam ñoom ngay waxal su la bëggee ñu may la ko te xoolal njaaloo bi ni mu tasaaroo ni ñu ko ubbee yaatal ko ku nekk rek foo fekk jigéen rek mi ngi mel ne mbedd mi ginaar yi xam ngeen ginaar séq yi ak ginaar yi jigéen yi séq yi lan mooy seen rôle bu ñu gisee ginaar gu jigéen rek dañuy daw dàqi ko ginaar gi daw daw daw daw daw ba ñu jàpp rek daal di cof yéeg ci kaw rek cof doq gi rek def li ñuy def daal di wàcc dem seen yoon léegi loolu moo nekk suñu diggante ak jigéen ñi da ngay taxaw rek xale bu jigéen bu la romb rek nga puis ko ngeen jàll waaw loo soxla mu ne la 3000 nga ne ko dafa cher 3000 non 1000 rek 1000 1000 non 1500 boog 1500 wala ndeysaan 1500 la ilaha illallah ñun fu ñu jëm am na sama benn xarit oustaz boo xam ne conférence la dem guddi di ñibbi nekk ci taxi de taxi bi jàdd droite ci benn essence yi di jël essence rek benn xale bu jigéen ay 14 ans fekk ko fa daal di sëgg ne nii rek daal di dugal loxo bi ci say ngos bi xëcc daal ne pomé na po- pomé na fere na nit kooku mu ne aouzu billahi mina sheytaani rajim mu daw mu ñëw fajar gi di ko wax nit ñi ñëpp di di pomé na fere na rek mu yuux guddi ah ay 11 heures fu ñu jëm fekkoon ne société islam lañ am na nañ bàyyi xale bu jigéen bu toll noonu muy lambar lambari mbedd mi fu nekk mu dugg fa ah nan yaraat suñu bopp nan dundaat diine suñ delluwaatul ci lislaam dañuy sonn gis ngeen lii moo tax yahudi ak nasaraan yi bugguñu julli di dund diine parce que àdduna bi day defaru saar bi dafa ñëw mbokk yi wadaat ila insifaafiha bi ictaiha xuquqaha allati farada allahu taala laha kalmahr walmiras wa ihsani alashira saar bi ñëw mbokk yi ne nañu toppatoo jigéen jox ko àqam yépp yi nga xam ne yàlla farataal na ko ci moom can bu njëkk ba jigéen ku koy takk doo ko jox can wax naa leen ko léegi da ngay ñëw rek sànni ko benn musuwaar wala benn kaala ne ko guddi damay fanaan si ndeysaan yàlla mu ne déedéet kuy takk jigéen na nga ko jox can loolu moo tax ngeen gis ci jàkk yi bu ñuy takk sëy waa ji indi can beneen bi nga xam ne dañ ko xañoon mooy miraas ndono moom jigéen bi dañ ko doon donn yàlla mu ne déedéet waaye jigéen kenn daawu ko toppatoo booy dund ak moom bu dee sa jabar ngay gis jigéen joo xam ne ci kër gi esclave rek la lu nekk lay def am na jigéen ñoo xam ne sax daawu ñu nelaw da ngay gis waa ji ndaw si yendoo def lu ne guddi jot mu ne kon upp ma dama tàng bul nelawaa upp ma saa yu uppukaay bi rotee mu toj ko pes noonu la ndaw si di nekkee ba guddi gi jeex ba guddi gi jeexee bëccëg bi ñëw mu delluwaat ci liggéeyu islam mu ne déedéet wa ashiruhunna bil maaruf da ngeen di dundandoog jigéen ñi ci njekk waaye mbokk yi kama taaradat bi tafsil ila ahkaamil mawaris saar bi point bi ma doon wax sànq beneen bi ci tegu mooy miraas gis nga ñaar yi ëpp importance ci lislaam yàlla joxu ko sax muhammad sallallahu alayhi wa sallam ñaar yi ëpp importance yàlla bàyyiwu ko ci loxoom muy jigéen ak miraas yàllaa ko leeralal boppam parce que dafa am importance mooy ndono xoolal tey ndono niñ ko bavardé Sénégal léegi amatul miraas dañuy séddale dañuy séddale dañuy séddale non paa bi dafa waxoon non maire bi non kër gi non non non non rek ñoom yére yi sax dañ koy dañ koy séddale ku nekk ne noonu naa ci am rek noonu man ma lu ma xoole paa bi rek waaw boole sax dañ koy séddale ñu bàyyi yàlla li mu wax lu tax yàlla waxul nañ ko séddale ci alxuraan lu tax yàlla waxul séddale leen waaye dana miraas doro ba pare mu indi règle yu ñu koy defee ñun ñu ne ñun ñoo ko yàlla yërmale dañoo war a jaay kër gi miraas ko kenn ku ne ñu ne déedéet man ko bàyyi nii rek moo tax lu ñu gis problème leen waaye jëkki-jëkki rek daan na sama wàll laay laaj jël yatam wala jaasi kër gi kenn du fi aj problème commencé yenn saa yi nga gis kër goo xam ne fi mu nekk nii toog ne téeméeri at kenn miraasu kenn xamatul sax léegi nuñ koy miraase ndax problème yi dul jeex loolu fan lañ ko teg te mu nekk ak ay atte ñun ëpp ñu yàlla yërmande yàlla mooy borom jaam ñi moo xam alaa yaalamu man xalaq wa huwa latiful xabir yàlla nee na maa xam de yéen xamu leen moo nag comme dañu ne ñun ñu ëpp yàlla yërmande yàlla bàyyi ñëw suñu bopp moo dañu am problème tey boo demee tribunal dossier yi fa gën a garaaw wax naa leen ko léegi mooy sëy ak miraas yàlla dafa leeral ci saar bi miraas ci anam woo xam ne anam wu wu wu sophistiqué la anam wu sew boo xamante ne maandute moo ko lal ak égalité ci miraas ku nekk yàlla jox la àqam fii yaay day jël nangam fii doom bu amee baay dàqu na fii nangam ak nangam lépp yàlla leeral la ñu ko waa léegi lan moo tax ñun da ngay gis fii benn ci séeréer yi ñu ne non ñun séeréer yi ñun suñu nijaay rek mooy loolu mooy la ah da ngay dégg ñu ne séeréer day doon nijaayam xanaa séeréer yi ñoom gisuñu lislaam ah yéen daawda daawda ah man de ko dama koo dégg ana séeréer yi fii ci jàkka ñi eh góor mag waaw yéen moom loolu fu ngeen ko teg nit kay bu xasee ne man lislaam laa gëm xolal ay maam ak ay xalaat ak ay xeet dàqu na lislaam rek waaye léeg nga ñu ne ñu ne waaw lislaam de loolu la waaye xam nga nag aada ji moom moom ak lislaam ñu ne ah xam nga ne aada yi dëkk bi nag moom yal noonu yàlla yërëm mbokk yi noonu la lislaam ñëwee leeral wa tahaddasat anil muharramat anil nisa bin nasab mu ñëw ne la jigéen ñi waroo leen takk doo takk ku la neex gis ngeen am na jigéen ñoo xam ne dafa araam ci yow yàlla limal la ko ci saar bi ne la ñuy doo leen denc acca loo leen nopp nopp loo leen bëgg-bëgg loo leen loo leen yàlla mu ne di nga ko yemaleeg sa doq de di nga ko yemaleeg sa doq doo ko gis de acca bul ko takk doo ko takk gis nga léegi nag ñun bu fekkente ne dunduñu diine dañuy jalgati rek ku la neex takk fekk dafa am jigéen ñoo xam ne dañ la araam waroo leen takk naka noonu mbokk jullit yi ci nàmp yaag jigéen bu ngeen bokkee ween bu ngeen nàmp araam na ci yow islaam saar bi di ko leeral xam nga tax ci kër yi da ngay gis ñaari wujju peccor ko man ak kii ñoo bokk ndey ak baay mu am soxna ma am soxna mu am doom ma am doom sama soxna dem marché doomam jooy moom mu daal di jabar doomam jabaram daal di jël sama doom daal di koy nàmpal fekk sama doom jigéen la woon moom doomam góor la xale yi màgg nobante ñu daal leen maye fekk ñaar ñooñu dañoo araam ñu sëy parce que bokk nañ ween bu ñu nàmp loolu ak a bëri ci kër yi ak a bëri ci kër yi ay jigéen ñuy nàmpalante ay doom te duñ ko leerala dañuy bàyyi noonu après xale yi màgg di sëy te daf xaram saar bi dafa leeral lool waaye mbokk yi saar bi dafa leeral musaahara goro goro sa goro yan taxawaay nga war a taxaw ci wetam est-ce que nit dina takk goro takk doom ji fase ko dem takk yaay ji da jëf ñu ne gaa ñu mooy guerrier non kii saaba la tooñ nañ saaba yi de ah heureusement saaba lañu wax de la hawla wala quwwata illa billah ci lan leen yàlla jubal mbokk yi saar bi ñëw ba tey wàcc di leeral alaqa azawje relation nit ak soxnaam saar bi wàcc di leeral nit ak jëkkëram saar bi ñëw tere ay grande ligne yoo xamante ne kenn ku nekk ci ñun diggante góor ak jigéen da nga cee war a jaar ndax sa dund jag ndax kër gi jag diggante am ngeen ne nekk dafa metti yàlla wax kër gi même bu amee problème naka lañ koy gérer naka la ñuy régler problème ci biir kër gis nga jigéen ak borom këram mën nañoo nekk ci kër gi ñu am problème ñoom ñaar ñu régler te kenn du ko yëg seen doom yi sax duñ ko yëg waaye day fekk ñuy dund diine mais bu dundul diine waxuma la mbedd mi waaye journaux yi sax dañ ciy jot foog affaire bi dem tës waaw mais bu fekkente ne yéen ñaar da ngeen di dund diine comprendre ngeen li yàlla wax da ngeen di am problème ci biir kër gi ngeen gérer ko ci biir néeg bi kenn du ko yëg te pourtant wala yéen a ngi bokk néeg bi de mais du ngeen fanaan ku nekk mu ngi côté waa mbedd bi xamuñ ndaw saa ngi togg yaa ngi lekk mais kenn xamul lu xew ba un jour ngeen juboo ah man de sawaay fan yi maag sawaay dañoo xuloo ah déedéet bon yow dem ba gis fi waaw parce que loolu la lislaam wax parce que xam nga lu tax moo tax ñuy tere jigéen ak góor ñu am problème rek li xew li xew léegi rek fekk ma suñu kër ma ne fekk ma fa laa wax waxuguñ la sax may nañ la baat nga ne fekk ma suñu kër moo tax affaire bi day siiw ah waaye tamit moom ni day wàcc rek ne jëla sama gaz ah dégage ñu ne déet déet déet mu ne dégage ndaw si dem mu toog ñaari minute ne gars yi moom ngeen moom tamit commencé waaw di wër dem ba ci bunt kër gi taxaw di xool wala di woote waaw waaw boo jël ma war antenne non dama dama kii yoon rek dama tàng rek xam nga tey affaire dafa métti voilà gis nga wala yàlla mu ne bu mu dem na toog góor ñi dañuy jéngu luñ mënul yenn saa yi jigéen ñi jéngu luñ mënul billaahi wallaahi taalaay léeg-léeg ma toog ba caag rek guddi ñu woo ma kaay ma ñëw ñu ne ah damaa dugg ci lu ma mënul de lan la soxna si dem na de sànq léegi nag ah ah, dimbali ma rek ñu jëli ko yenn saa yi dama jëñ ndaw soo xam dama ñëw ah man dama doon réew réewlu rek man tamit ah, dimbali ma rek nan dem nan dem dimbali ma xoolal yooyu yooyu la ñu war a bàyyi yooyu la ñu war a bàyyi di sombi lu mënta naan waaw yenn saa yi nga gis waa joo xamante ne xam na ne ndaw si bis bu nekk fii lay jaar su xëyee foofu lay ñëw toog di ko gis ragalal yàlla xoolal doom yi xoolal doom yi du benn xoolal doom yi moom boppam la bi billaay non non dañu am problème sérieux problème la sénégalais yi am sérieux lii kenn mënu ko wax ba mu jeex ala kulli xaal mbokk yi saar bi li mu war a li mu géré li mu wax dafa bëri wa annaha laysat qawaama gis nga saar bi ñëw na di leeral diggante góor ak jigéen mu ne góor nekkul su su yàlla ne jigéen góor moo supérieur jigéen góor mooy chef tekkiwul ne ndaw si sa jaam la déedéet maanaam mooy yoon boo gis ñuy dox dafa am ko war a jiite diggante góor ak jigéen dañuy dox yoon wi oto bi bu ñu ci duggee foog mu am chauffeur wala bato bi bu ñu ci duggee foog mu am capitaine avion bi kazalika kon kër gi bu ñu fi nekkee kër gi mais il faut bu ñu ñëwee ñu ne ana borom kër gi mais dañuy ñëw ñu ne ana borom kër gi ñu ne eh ayda wuyul mu ñëw ne maay borom kër gi te loolu tamit xel nangu ko kon kër yàlla da ko dénk góor mu jël jigéen ji bu dénk bu góor ki mais waxuñu la nag sa mbaam la dégg nga ngay mbëkk di sone di saaga di tàngal waxuñu la loolu dañ ne la yaa jiite yoon bi rek tànn la ne la yaa jiite taxul nga ne yaa fi mën ci yoon wi ah est-ce que capitaine équipe bi moom moo dàq fulal ci équipe bi non dafa war a am capitaine bato bi dafa war a am capitaine avion bi kazalik oto bi kazalik yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dafa ne sax ñaari nit bu ñu dox lu dul na am ku jiit ñaari nit waxuma la ak nag ñett kon loolu yëpp saar bi ñëw na di ko leeral waaye saar bi ñëw na mbokk jullit yi di leeral mboolem tournage u famille mboolem tournage u société mboolem lépp luy lu baax lu rafet lu nit war a taxawee nit ku baax saar bi sax bal dafa ñëw asaasul ihsaan atakaaful wa tarahum mu ne fondement lii tax société baax mooy jàppalante ak yërëmante saar bi yëpp dafa ñëw di ko leeral kon de dinañ wax ne dëgg-dëgg saar bi bu wàccoon dong dong pour nit ñi dund société islamique doy na de ah doy na doy na suratu nisa su ko jullit ñi gëmoon ja dund ko kon jeex na seen àdduna ak seen àllaaxira yëpp rek leen mais maa la saf tubaab yi nax na nu ndeysaan ndax ñun xamuñu li ñu am tubaab yi dañu nax da ngay dem ci société yi nga gis ay tubaab yu jigéen yu tuub démissionné fan doon liggéeyee daan na ñun ndeke dan man dan na doon naxa nga ñëw ci société islamique yi nga fekk ndaw soo xamante ne dafa génn këram ne hii sëy fële laa ko teg sëy ba fële sama ba ma génnee laa am liberté léegi ndax gisoo jigéen ñi ku tas dootoo sëy di seen loolu loolu ku sa jëkkër dee dootoo sëy ku tas dootoo sëy wala nga ni yuu jaam lañ lay def góor ñii kenn manu dab seen i bànneexi bakkan jaam lan lay def te man du ma fi nekk di jaamu kenn di togg di yekk du ma ko defal kenn moo tax jigéen ñi sëyatuñ yow góor bi yow yaay sëy sëy bi moom jeex yaay dem marché yaay togg yaay fóot yaay jëndi gaz wala yaay taxani d'accord ngeen wala kuy fay bi naan yi kii togg koy fay kii fay kii fóot kii fay kii bale ah kuy jënd gaz léegi ndaw si lu muy def ah dara toog rek sangu solu dem day ndike dem dem ngénte dem xew kese toilette rek di génn di dem foo ko fekk rek mu ngi sangu maa ngi dem te ñëw maa ngi dem te ñëw maa ngi dem te ñëw rek maa ngi dem te ñëw saañ baa ngi foofu ayda tàngalal ko ko ndeysaan bu paree nga bay ko ndox mu naan e xaar moo ñëw yow ndeysaan di tëdd rek di xaar day doxi ba guddi mu ñëw fëgg waaw yow tamit ndeysaan léegi yow yaay sëy sëy bi lu waa ji waxoon yonent sama jabar dafa rafet waaye nag ku ko teg loxo mu dem man dina fase ko mu ne si kon gaa ñi dañ koy takk ma ne ko kon muñal ah moo tax ku takk jigéen ngir taar da lay fitnaal ku takk jigéen ngir taar ba surtout nag ku repp ba ne sa jabar si yaa fi gën a rafet yow non man kay ba ma la takkee laa texe alku nga boo reppee ba wax loolu jigéen mu dugg ci noppam alku nga soo reppee ba jigéen xam ne da ngaa foqale alku nga soo reppee ba jigéen xam ne da ngaa bëgg say doom alku nga soo reppee ba won jigéen da ngaa bëgg sëy lu bëri alku nga bu mu la mere rek day tëdd ci suuf nga naan gama boobu garaawul dinaa ko gérer mu woo do sa doom pes ko ah nga ne xaaral ma gérer boobu ana reer bi mu ne la togg ma tey gis nga yooyu la lay jéem a xeex moo tax bul woon sa soxna ne yi bëgg nga ci benn waaw bis boo ko nee ne da ngaa foqale tey nga dee bu la meree soom fuwande bu amul soow lay togg nga wax mu ne li nga joxe matut dimbali ma soo koy wax dëgg yàlla ñaar fukk sax nag war naa man waaye dañ lay wax ne 1000 francs yi soow amu ci suukar laa ci jënd mu jeex sooy lekk nga lekk boo lekkul yaa xam ah nga xam ne tey am na lu xew guddi jot nga sang ñëw nga gis moom mu tëdd fële ci canapé bi wala mu lal basang wala mu sol jiin nga xam ne gis nga moo tax boroom xam-xam yi di wax ne bul woon jigéen ni da ngaa bëgg yi mbokk yi dañ doon def muqaddima saar bi parce que doonul woon jaadu rek ñu ñëw mbëbëstal saar bi mu rës rësal ko mu dem non non foog ñu wax nit ñi saar alxuraan bi li tax mu jóg parce que loolu moom mooy ñu jëriñ foog ñu xam alxuraan bi ñëwul rek pour nekk téere barkeelu ku dee ñu ne ñëw leen ngeen wàcceel ko kaamil ñii di ko takk ñii di jamb ñii di naan ñii di raay alxuraan ñëwul pour loolu alxuraan dafa ñëw pour changer suñu vie pour ñu dund nekk ay nit yu normal yu tegu ci li yàlla bëgg ñu dund aljanna ci kaw suuf incha allah fii la ni yem bu samedi jotee buñ fi yàlla bàyyee tey bu fekkente ne li des ci mbëmbëstal bi mën nañ koo yeggale ñu yeggaleen ko bu fekkente ne incha allah am na nu muy demee ñu dugg ci bopp saar bi asalaamualeykum wa rahmatullah barakallahu fikum